Yeah, yeah. yow mi def lii mbaa xalaat nga vie de famille bi nga yàq mbaa xalaat nga bés dina ñëw yow nga lay yow. si benn mara

hey yow tijjil buntu bi nii ngay convoquant na yow lo dara tijjil ma buntu bi waaye ma dugg waay eh. mais attends yow heure bi ngay ñibbi si bébé il est 3 heures du matin yaa ngi soog a yi sax tëdd nañu. waaye nga dàmpal leen. ah loolu nga may ah. wax. Wa bax na.

Wadi des fois changer, non Wadi des fois changer, Côté côté côté yo oh, me defle, ah. côté côté côté yo me defle, Yes, yes, yes. Hey, guys, t'as tué le way. Hein? Nice, oh. nice, nice. Ah, Mais c'est ça, content, hein? Yeah, nice man. Fugu back all the way. Ah, ah, ngana bolen. Ah, ngana bolen. Ko gal. Mais ça, mais bon, il va nous demander non non. Chaka Bob Sky, man. Yeah, yeah, yeah. Vas-y. Chaka, tu, Chaka tu vas introduire ce son, tu vas nous parler. Ouais, nous faut demander non nous son, Miguel. Quelle histoire et tout, vas-y. Hein? waaw waaw waaw waaw waaw gis nga des sons bi dédélé. waaw en fait mom mu ngi si expliquer ben histoire euh, xam nga souvent dañuy wax nan jigen des fois mu tamal borom kërëm, jëkkëram Lo xamné day dem ba ci bir bu ko ko changé ok ok voilà donc bon, c'était man sama partie si sound bi maa ngi koy expliquer ne euh, heure yi ngay bañ heure yi tax ma ñëw di fëgg nga bañ ma tijil yag nga ma bàyyi may gën heure yooyu donc juste pour wax ne des fois dina am jigen yo dañ lay tamal lo dañuy donc aussi ben histoire la am vraiment lay lay wax si sound bi li nga tay mom moy tax yow ak sa bon def euh, peut-être incompréhension lay entre euh, mari et femme mais man sama position xamna mom bu ñëwee dina gën développer mom lu tam wax loolu mais man li ma sama position li ma ñëw c'est juste wax ko euh maag yow tay jëkër ak jabar lañu yàgg naa fi génn yenn heure yi te mosoo si kaas mosoo si wax kon la motax tay may ñëw ngay waaw du fëgg buntu bi pour tijji nga bañ ma tijjil waaw xam nga voilà sama sama parti ci loolu la koy expliqué eh, li ma wax naan ay xale yaa ngi jooy affaire demee noonu ma ne ko mais yow sexal leen affaire bi ñu muucu wala boog <laughs>

donc euh, dougal ay affaire u maraboutage ak yoyu lolou moy indi tension tout le temps euh couple bi di xuloo di xeex ba divorce sax mën cee am. mais amna na ñoo xam du affaire de maraboutage moo ko pooj la beneen da nga gis benen benen faatu bu joŋe. buy def ah, ay ay xéetu bax baxam non dëgg la waaw comme li ñuy wax mom euh bakken lay wax sax bakken dafa bëgg lu neex donc euh, des fois nga gis tam benen xalé bu la defal lu neex. Mm. nga dem top ko mais euh, côté bi may waxee moom côté maraboutage parce okay. que Afrique lañ nekk c'est des choses qui existent moo tax dañuy wax ak nit yi que euh, foog ñu xalaat yalla aussi parce que mm. bo gisee ñaari nit yi nga xam ñu ngi sey nek ci bumu yalla nañ leen ci bàyyi rek mm. waaw c'est pas bien di dugg ci yenn yi xam nga waaw ok légui benen featuring bi ngeen def bobu nu mu tudd euh, African, African non Sénégalais Queen. Yeah, bon ça aussi je vais te dire ah. waaw ben, ben remix là. -hmm. Two Face. Ah, fa ñëw studio nii rek ñu toog nii. jagal tuuti micro bi. voilà benn remix la Two Face. Mhm. dafa ñëw studio toog. bon ñu bind bind ay texte bind texte et tout ça benn instant mu toog mu ne ma non mais chaque instant yi amatuma amatuma inspiration sonn naa quoi et tout ma ne ko ok léegi jëla micro bi xaar ma xool instru ma xool nii rek daaj si instru ma ne ko xam nga son bi mu ne ma woy mhm. ma ne ko son bu ma neex la duñ ko branché ah, ñu fos mhm. comme ça ñu ngeen tegu si waaw ñu def waaw ñu def ko feeling bi noonu mu feeling nii comme ça guddi si ngeen studio ni, rek heure kaane bi rek mu comme ça sure waaw dañ si fo son bi xaaral ñu déglu fo bi lan la joxe après bu acca c'est parti yeah yeah yeah y'a queen

nañ ko waxtaanee. maa ngi di di dox mais di ko dox. àdduna lépp ma di dox di daj ay tolof tolof. I want to you by my side girl. samai tango deliver or dies Magde musuma wosor Te bishop be gonna more Aka yaga nice I'm feeling ay Jarel gama fight ay Dama te be sama ass Mutek ma sama plus Dina tege te do tas Ya now Nanyo ande moy to chow Yangi know baby wanna gonna nice ay Wallahi sama Senegalese win What na gën a nice réero amul nañ ko waxtaane maa ngi nii di dox me ni ku dox adduna lépp ma soof di dox di daj ay I want to you by my side girl yaa indi ma oxygen. queen yaay sama sénégalais queen su ma la du saf yaay xorom si cin su ma feebaree lu dul yow bu ma kenn tim uh. yaay sama jant saa su you are my life moo tax tey ma love bu mel ni musuma dal tax sama yaram tàng I don't give a damn li ñëpp di xalaat ci man sama xol moo gis bëgg man lu ma ci Baby lu gis yow man mi ba tax one day, You are African queen You are Senegalese queen Ooh ooh Africa Queen, euh, mention spéciale, hein, une très belle reprise, euh, bien sûr. Euh, Chagababs, bien sûr, en compagnie de Lady Wico. Alors, les auditeurs, j'espère que vous êtes en train de kiffer de la bonne zik. Hein. On est en compagnie de trois grosses pointures depuis tout à l'heure. Menemo Jarnafi, bien sûr, Jarnafi Tassare. Et puis, on est en compagnie, bien sûr, de ce couple magique qui est en train aussi de, nous régaler. Hein. Alors, sur ce, après ces deux sons, Lady. Euh, le troisième euh, son que tu vas nous proposer, ça parle de quoi donc la number one. ok euh, donc euh, euh, nit ku li ngay number one. effectivement mais les number c'est les mecs c'est les garçons c'est les hommes les number vous ah vous êtes numéro deux. Vous venez après les hommes. Mais le monde a changé. Le monde a changé. Mhm. Euh, maintenant nous sommes ñu ngi que nous Nous sommes ngi nous présentement même rôle. Mhm. donc euh, c'est pour dire que là, nous sommes dafa am jom. là, mhm. euh, nous donc euh, moo tax mané chaque femme est number one. jigéen bu nek am rôle bo mën jouer. da nga gëm yow ko. si dama ko gëm. mais tay si game bi nga xamantane si lañ nek gis nga car machallah xalé xale yu jigéen yu si nek mhm. sank lim nga Viviane y a des Titi y a autre y a les oh, oh my god OMG. est-ce que tay fogg nga né avec ces grosses pointures yi ma lim légui mhm. yow tay euh, en tant que Lady Wiko di nga am place euh, si si game bi parce que ñooñu. ñooñu caaxaanuñu ñooñu instant yi eh, mooy loolu quoi dañu dañu tegu est-ce que tey pare nga pour pour xawa mesurer ce ce talent ak ñooñu. dëgg la yombul mais aduna nit ku nekk da ngay am gëm-gëm. Mhm. te man musique bi depuis toute petite dama ko gëm. fi ma aksi man yàgg naa rêvé que ne un jour viendra dinaa fi aksi mhm. donc loo gis rek gëm-gëm la. Euh, da ngay jàpp rek te woo bàyyi ku yàgg ci teen rek baag fekk la fa. y aura les tentations vous êtes des femmes yéen a ngi si gem bi ñun ay góor la ñu ngi si gem bi te xam nañ ne am na ay obstacles am na ay tentations tey en tant que jigéen. Euh, demain tu seras mère de famille. Mhm. Non. Pas encore. OK. Demain tu seras mère de famille, tu auras des enfants et tout. Est-ce que tu as de euh, pour donner la vie euh, bien sûr de foyer avec la vie de carrière d'artiste Ah mais je pense que c'est pas évident parce que si je suis artiste yu bari ñu baal ay divorce Donc euh, beaucoup les loolu di nga xam ne man je me dis que est-ce que du looloo tax sax jigéen artiste yu bari duñu sumb ci affaire u sëy parce que imagine toi nga waaw nga nekk ak sa jëkkër mhm. nga nax ko quitter benn sakabab su ne la waaw alors waaw deux heures du matin war nañ dem fële de ah c'est ça tu es obligé d'y aller man la moom ma leer ne sakabab sakabab day nekk foofu naan ni soow bi nii la <laughs> ah. donc moo tax daal dafa doy waar te du góor ñëpp a koy accepter xanaa nga gis góor bu compréhensif mhm. nga mën a nekk ak. kon yow maanaam si gàttal bés boo marié woo da ngay teg sa carrière nii doo doo wayti. ah loolu jaaxal na ma nag mais bon problème mhm. de choix la hein. non damay poser question est-ce que yow demain soo marié woo da ngay continuer sa carrière musicale wala da ngay topp sa jëkkër ak say ay doom. ah vraiment carrière bi nag bëgg naa ko nag waaye nag foog nga sëy aussi. Mhm. jigéen bu nekk ñaan nga yàlla sëy jur ay doom. Mhm. waaw xanaa nga tombeel góor bi nga xam ne rek dina mën a attan loolu c'est ça kon yow yaa ngi am sa mbokk art artiste boo xamante ne moom si milieu bi la nekk comme yow mais c'est bizarre ah artiste artiste seen sëy du yàgg ah bon ah bon moom loolu moom jaaxal na ma artiste artiste artiste seen sëy moom euh, day métti ok waaw parce que ku nekk da ngay nekk ci game bi ku nekk da ngay bëgg a représenter ku nekk da ngay bëgg a wane sa mm-hmm. sa bopp kon daal conseiller woo yow conseiller woo artiste ak artiste di génn wala artiste ak artiste nekkul lu yomb franchement. ok <laughs> léegi lan ngay conseil ji mu takk artiste wala. artiste ordinaire nee na moo ànd. artiste ordinaire. Ah, ok ah loolu moo ànd. artiste ordinaire. personnellement sama avis la. loolu sa xalaat la yow mën na gis leneen waaw. mais du ñëpp d' accord yow. c' ça moo tax ma ne c' mon avis. parce que artiste artiste donc am na ñi nga xam ne gis nañ leneen. ak dañu sëy. et ils sont toujours ensemble. Toujours ensemble. Hein. C'est ça. Kon Donc euh, dans chaque règle, <laughs> en tout cas man sama avis hein. artiste de? man un artiste man artiste Je kanam te ma non je suis contente. parce que artiste artiste <laughs> ok, donc euh, quel est le troisième son qu'on va écouter Il paraît ah, que waaw number one ah kon képp kuy jigéen pareel déglu son bi parce que son bi ñu ngi koy may les jeunes filles les femmes mhm. ah, borom tatouage yi am na ay jigéen yoo xam ne dañuy tatouage aussi est-ce que yow bëgg nga tatouage tatouage du sa feeling bon defuma dara suma ma gisee keneen ku ko def duma duma du ma gêner quoi piercing da ngay def piercing waaw ah, damay def piercing parce que ku nekk ak sa choix sa femme tamit ci aduna quoi aduna mhm. ku nekk ak sa choix mhm. donc euh, loolu kii la choix ok Aïcha number one femme bien sûr euh, au plaisir de toutes les femmes. number one c'est Hyse number one. Hyse number one. My kahamsa birak biti. My real liti liti. Sama kanam dangay da kisiki. Yeah. Hyse number one. My jump to be lay later. My kitak yayam jal fera. Ala jural tabuko. My son number one. Number one, number one, my son number one, number one, my son number one. He's a number one, not number two. Never, not number two. I say never. Man, my son number one. doon yow sa jëmukaay dama oyof ne la ne number one my Sir John my Sir Queen my Sir leer sa Rihanna sa Beyoncé bu guddi gi xaajee may ja Merci beaucoup. On applaudit encore une fois. Allez-y, euh, bien sûr, euh, rejoindre votre siège. Alors, chapeau, chapeau encore une fois à la diva, à la princesse, bien sûr, Lady Wiko, euh, qui vient de nous proposer ses deux sons en featuring avec Chagababs et bien sûr Number One Femme. Mention spéciale Men. Nous, c'est sa sister bi avec Chaga, c'est son yi nga xamante en tant qu'artiste. bon euh, déjà dama koy féliciter bu baax a baax a baax parce que. voilà def na def na affaire yu nice affaire yu daw yaram daal si si son yi déjà grand bi moom moom awma lu ma koy wax parce que moom voilà ñun yàgg nañ ko suivre depuis temps number <laughs> comprendre nga ñun xam nañ ko depuis temps boobu donc. Euh, voilà mon mu ngi assuré depuis et puis il a su maintenir le cap depuis depuis xam nga aussi na aussi déggoon si yenn jafé jafé yu ndaw sax mais alhamdoulillah lay wax parce que bi ko gissaté mu nek en très bonne santé donc dañ ci sant yalla bu baax quoi voilà parce que grand bu cool et puis maa ngi gis muy propulser ay jeunes talents donc lolo aussi soxla nañ ko bu baax quoi ci game bi ñi nga xamné ñu ngi ci souf ñu jappalé len pour ñu juk bon pour sama système bi mom voilà apprécier na premier single bi trop voilà parce que wax na ci lu am sens aussi mais man euh, li mujjee joué nii moo ma gën a dugg quoi. number one bi number one moo ma gën a dugg parce que mélodiquement voilà nice na trop et puis je pense by Mike moo def beat bi parce que maa ngi dégg signature am. maa ngi koy shout out de passage aussi mm-hmm. beat bi nice na trop et puis def na ko à la sénégalaise wax na ci lu am solo daal. Mm-hmm. maa ngi koy maa ngi koy encouragé bu baax a baax a baax di ko wax ne voilà yoon bi aussi yombul. Mm-hmm bëri na ay obstacle aussi mais gëm rek dox xam nga mhm. am fit quoi yokk sa waaw jëm kanam mooy loolu si demain aujourd'hui euh, elle t'envoie un message euh, mais ne moom bëgg naa ñu def benn featuring serais-tu prêt à accepter ce featuring avec elle waaye man man nag je suis open je suis ouvert d'esprit mhm. su fekkee am nga talent bi bi nga xam ne nit ñëpp ñu ngi koy rechercher donc pourquoi pas ma def ak yow featuring man je suis comme ça su ma la xamee ne voilà am nga benn talent bu nekk si yow rek suñu defee benn featuring dina def boom nit ñi dinañ ko bëgg dama koy def quoi sans sans hésiter yeah. c'est important de le de le de le souligner. Mm-hmm. Euh, alors euh, tay jot nañ le message est-ce que mën nga ma liiral deux trois messages euh, bala may jël euh, sama sister ñom laaj tamit sama auditeur yi sur cinq ñaata lañ noteel Lady bien sûr Wiko.

Super. Bindul Touram. Euh, message non non non. ok da leen bind hein, auditeur. message, message euh, c'est pas je te nomme. que euh, son papa là. oui je te nomme. sérieux. le papa il est en train d'écouter. bien sûr ah mais respect. depuis Mbour. respect ah, respect le papa. le papa qui supporte son fils ça c'est extraordinaire. il s'appelle comment ton papa. Georges madame. monsieur Georges. ouais. ok monsieur Georges respect de la part des PNG. Mhm. ok allez on continue après monsieur Georges d'autres messages. Salut, c'est Djegan. Je note 5 sur 5. Djegan, c'est séeréer le de. yee Djegan n'a vu hegere fu Djegan. séeréer la foofu de. waaw ah, naafiyo mhm. Donc, euh, salut, c'est Binette euh, de la PNG Family. Je te note 5 sur 5. yokk cere dolli <laughs> oh, merci Binette. Je nga naka la ko ñu tam xarit de bàyyi. ji lourd, lourd, lourd, lourd. ok ju nee na kooku benn lour la message yaa ngi ah loolu waaw lour baax na ci sedd bi de <laughs> message yaa ngi ni daal gis nga ko lii yëpp gis nga ko ok super super maa leen di remercier aussi ñoom ñëpp parce que message yëpp dañu positif donc mënuñu lire lépp mm. voilà di bàyyi ngeen continuer rek ñu nekk si leneen quoi

bala may jël direct bi eh, si 88 628 99 90 yow tamit nga sa 7 comme ça pi ak ji ak mi un tatouage ñom ñep message wax ñu ñom naka eh, bien sûr euh, ce show. 3 7 77. 393 77 ni dafa 7-7. 7-7. bi. 77 ah, gis nga. 393. <laughs> mais le numéro bi 393. 74. 7, 4. 6, ok maintenant 7. Ok. mais numéro non non C'est mon numéro mon du dem pas <laughs> bàyyi Chaka waay sànq ba léegi yaa ngi <laughs> non hein? mais <laughs> non copain non je day jaay ok alors maintenant moo nga box, si vous nga xamante ne envoyez un message noté sur 5 ah puis un message ji day message euh, si euh, message leen ngeen je note ah. mm-hmm. Mm-hmm. voilà vous l'envoyez au 7, 7. 393 74 67 je répète ku un message Lady Wiko ne que je te note 1 sur 5 ou le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5 sur 5 envoyez le message 677 77 393 74 67 monsieur Georges le papa de Menemo vous tamit un noteel ma xale en tant que père de Menemo vous nga un hôtel voilà alors monsieur P toujours aussi via le net nous sommes sur bokk émission bi tamit nous ñuy lire message nest voilà il est 23 h passé de 45 minutes il nous reste 15 petites minutes à partager ensemble avons profiter lire message bien sûr jël direct bi tamit mun au 88 628 99 90 parler avec euh, nos invités Sabafal Fall 5 sur 5 euh, El Darika nee 10 sur 10 euh, la la diva voilà, Adeline Colli, courage à mes jumeaux de cœur, on vous aime. Bisous à toi, Adeline. Adam, oui, depuis la Mauritanie, ça chauffe. Must tu poses euh, de très bonnes questions à la demoiselle pour Guy. Yeah, tamit baax si ah. Mauritanie ñu Mauritanie, nous di bu Fatima, euh, bisous à toi. Eden Hazard, mention spéciale à toi. Toujours euh, les textos, bien sûr.

Il y a toujours les textos. Bonsoir euh, les amis, mon cool. C'est Seydina Goudjabi depuis Pékin. Mention spéciale à vos invités. Super. Yeah. Awa et Adama, c'est des jumelles depuis HLM 4. Les jumeaux, nice émission. Gagnon hein? Gagnons Tassare. Dis, dis, qu'est-ce qu'elle raconte euh, nice, euh, vos invités déchirent gravement. One love. Hein? Super. Alors, Master P, oui, c'est permis de nous joindre via le 88 628 99 90. ok à ñu xool suñu auditeurs yi léegi yan auditeur ñoo show bi nañu 10 minutes à grignoter. Euh, da un ni jël seen téléphone ngeen composé 88 628 99 90 pour joindre les PNJ en direct 88 le 628 99 90 pour nous joindre en direct parler avec euh, euh, nos invités de ce soir. Alors Menemo aujourd'hui tu as des projets. On est en 2020. Mhm. On est en 2020. Dans l'immédiat, c'est le mois de janvier. Alors, quels sont les projets de Menemo euh, Wow. Bon, il y a enregistré, mais nous pas exactement là parce que à la base nous avons di enregistrer projet mais dafa bëri son tellement que euh, les gens mujjee génne sax si le comprendre nga donc mën nañ génne benn mixtape si biir parce que tellement que dafa bëri li ñuy record donc mais je pense que album lay nekk incha allah parce que ñu ngi siy liggéey bu baax a baax a baax y aussi euh, des parce que am na yu ñu commencé tourner am na yoo xam tourner nañ ko ba pare donc euh, dina nekk benn at boo xam ne dina riche en vidéo et en projet incha allah ñu ngi liggéey ci vidéo bi peut-être février wala mars dinañ génn beneen vidéo après ñu continuer enchaîner vidéo parce que at bi moom incha allah dinañ ci def vidéo yu bëri quoi. super c'est yeah. important yeah. on va prendre quelqu'un en ligne et puis euh, revenir euh, si suñu discussion bi euh, bonsoir Mené Mo ko bonsoir. bonsoir. El Mené Mo naka ngeen. sant rek alhamdoulillah loo ne man la Bas Fall Mbour. Bas Fall lay ziar. delloo ziar ngeen ci loo ne. cool sant alhamdoulillah amé ñu ngi lay bëggee ñu ngi content machallah merci beaucoup ça fait plaisir. mon franchement pas nga mbuur gembur wax tijjil Garap, sénégalais aussi merci merci ma kontaan ci prestation bi nga def jërëjëf di la wax juste bonne continuation merci beaucoup inshallah yow moom lu baax parce que tu es talentueux gis nañ li ngay def ci rab bi ñu ngi lay aussi pas à pas ayca merci beaucoup kontaan yàlla yàlla euh, bi ci yoon bi nga nekk ni yàlla na amin amin waaw yow moom suis content ça fait plaisir bro merci. man. merci beaucoup donc mon euh, mour le dëkk mu ngi mu basse, basse Bas ah mm-hmm. donc mour sa base là. Basse Fall wa man mour la dëkk. Mour nga dëkk. Wa mour. nga. xaar ñu euh, euh, il est parti ji alors mention spéciale à tous les jeunes de mour. ñi nga xamante ne jamono ji ñu suivre via le net si www.kingfm.sn donc as wa mour ils ont l'habitude de te voir en spectacle, en show. Ouais, waouh. n'est-ce pas. bon dañ dañ de de partout fépp fu ma dem aussi dañ may fekk donc euh, man ñooñu moom awma seen fay spécialement awma seen fay parce que voilà fu ma mënti jouer muy stade Iba du Grand Théâtre du Sorano dañuy def le déplacement a euh, la team bandi bu xees boo xam ne fu ma dem Sénégal dañ may fekk si damay dem jouer ji bassin Saint-Louis ñu dagg seen passe ñëw seetaan si donc. Euh, maa leen di shawaraat bu baax a baax a baax de passage parce que ñooñu aw ma seen fay. ok euh, léegi léegi waxal ci bonsoir bonsoir. allo bonsoir. allo bonsoir ça va. ça va et toi. ça va alhamdulilah. bon félicitations ah son yi neex na. merci ma belle merci beaucoup. waaw tey émission bi nice na vraiment. merci Tour, bi naka la. Fatima Wali. Fatima fooy wootee. maa ngi wootee depuis Parcelles donc mang lay ziar bu baax di contane sa wote Fatima. wa ma gën a kontaan neex na trop li ngeen fi def di leen wax bonne continuation yow ak Mimi Mbaye. merci beaucoup merci merci. allez gros bisous à toi. Fatima euh, pour la femme euh, tu lui as noté combien. so mo la danel 5 sur 5. Pour sur pour Ménémon pour Ménémon tu lui as donné combien. waaw yow so soxna si yow da nga baax ba mu ëpp de. merci beaucoup yore sa cinq nii di ko tasaare nii rek. am na benn son mu je t'aime. c'est vrai waaw am na son bu ñu def man ak Dieyla Banks je t'aime. voilà voilà merci beaucoup eh. merci jërëjëf. noo gisee prestation Cheikh Babs. <laughs> non nice na moom dañu màgg fekk ko fi donc voilà.

<laughs> Demain, on va inviter les 14 Miss qui vont défiler pour l'élection Miss Sénégal. D'accord, Inch'Allah, j'y manquerai Inch'Allah. Allez, merci Fatima. Merci oh. Fatima ok comme nous ko defee won daw 14 miss yi nga xamantene défilé won nañ euh, pour euh, élection Miss Sénégal bi ñëwoon nañ radio euh, bien sûr ñu présenter leen auditeurs yi auditeurs yi ku nekk voter ce miss yalla def Miss Ziguinchor bi gagné ko suba tamit dinañ leen inviter 14 miss yi Saint-Louis Thiès Ziguinchor fu nekk lañuy joggé ñom 14 dinañ ñëw ci radio. bi présenter wu ku nekk wax ñu bien sûr ban région ngay représenter yéen auditeur yi mën ngeen préparé wu sur la net di nga gis en live and direct ngeen wax ñu kan moy donne sen Miss. jury <laughs> <laughs> vous êtes célibataire ou marié non je ok euh, célibataire. ok super euh, donc 5 mois ngi c'est projet. projets euh, est-ce qu'on est-ce qu'on peut voir Ménémo en prestation est-ce que souvent tous les samedis Ou chaque mois ou chaque cinq mois. Euh, côté événement lay waxee quoi. waa bon événement nag euh, ça dépense si concert yi am ci année bi quoi parce que mais mais concert yu mag yi am ci année bi presque yëpp gars yi dañu may invité voilà récemment Elzo Jam Dong récemment Akhlou Brick euh, voilà bëri na show yu may joué daal show yu mag yoo xam ne ñu ngi am Sénégal foo dem di nga fa fekk mel ne moo allah yeah. est-ce qu'au au niveau de Mbour il y a une place yi jouer en live ou pas encore. non non man en fait Mbour suis là depuis que di job quoi. job depuis que j'ai mon bac là, 2013 ma parcelle quoi. les week-ends les voilà nous, la demain parce que c'est mère parce que ñu ngi que frère quoi. donc euh, les week-ends fay puis PA bu parce que nous aussi nous support bu baax yeah, yeah super c' important kon jii suñuy demati ñu ànd ak Ménémo seeti maire waaw waaw ah, ak monsieur Georges foog ñu seeti ko. waaw waaw. Ok. Alors, la diva, est-ce qu'on peut euh, savoir tes projets On est à quelques minutes de la fin de l'émission. Ouais. Euh, euh, ces projets à toi, euh, dans l'immédiat, dans le futur. Déjà, avec le label, bien sûr, euh, Canal 4 euh, Production. Euh, est-ce que tu comptes continuer avec Est-ce que tu es à l'aise là-dessus Dans les journées qui annulèrent, on te met dans de bonnes conditions, on te sauvegarde déplacé. Est-ce que nous les textes, on t'a met toi, label Est-ce qu'il y a une fête Il Voilà. le taille, label, si nous sommes dans le sort, on se dit, ouais, ouais, chaque barbe, si on a un affaire, mais file,

Mams ñu ngi lay vous bu baax moom nitu démb la depuis Kaolack ah. donc Immaculée Conception bu Kaolack PNG Nous nañ fa tey ñu am suñu benn doomu bu studio ça nous fait plaisir hein. respect frère Content nañ trop waaw comme je vous doon wax rek ngi Canal 4 di liggéey ak ñoom te ñu ngi prévoir aussi album présentement albumu Chaka lañ nekk di job euh, en même temps di allons promouvoir le single Femme Number 1 donc ci lancé boobu lañ. parce am na clip femme number one bi. parce que ñun dañuy def ay émission télé les mercredis ah. bëggoon nañ tamit suñu émission télé su fekkee ne Ménomo am na clip. fekkee na bien sûr la star am na clip ñu invité leen tamit nu ñu leen invité si rajo bi def promo bi ñu def noonu tamit si télé bi 14 régions yëpp di leen team di leen seetaan. effectivement am na vidéo vidéo bi génn na donc je pense que TFM sax dañ koy teg waaw. Euh, pare nga pare nga pour benn Hello Ado ak PNG si télé bi mais non moom yow tamit pare nga. bien sûr. tasaare ko. Ah, waaw ah. <laughs> Aïcha oui euh, donc présentement ci lancé boobu lañ nekk promouvoir single bi projet yu ci des mun naa am ci kanam lépp dina ñëw incha Super. Donc, Tchèque Babs, euh, tu Tamit, euh, assisté à une émission pendant 1h30 minutes. On a fait le show ensemble. Mm. On est à 3 petites minutes de la fin de l'émission. Mm. déjà, cette émission B. quels sont les projets, bien sûr, de Chaga Babs, bien sûr mm-hmm. L'émission émission bi nice hein. euh, bon en fait innovation pour moi, hein, parce que moi laay wax ni euh, si plateau Radio, émission mais vous ne pas par contre que donc ce qui veut dire que bon andi c'est bien.

Euh, by Mike c'est mon beatmaker mère nga depuis presque 8 ans mu Canal 4 di job production et tout ça di ko encourager ses carrière Je remercie aussi Paco Black Record qui yi nga xam mon euh, clip Femme Number One bon di aussi euh, Lady Wiko et ses parents aussi parce que avant à commencer liguer moi, j'ai j'étais voir ses parents donc si confiance bobu ñu am ba bàyyi ko muy ñëw studio di job et tout ça parce que ñëpp xam nañ né jigéen la buy ñëw ci ay groupe pour liggéey donc tay papam ak yaayam bu ñu démé ba bàyyi ko may ko liberté am confiance bobu si man donc yoon na ma delloo leen jukkal et puis di ñaan li ñuy sentu sen doom si carrière bi et puis mu dem ba loolu réaliser wu te si tànk yooyu la ñu nekk waaw voilà donc loolu di remercier waa King FM bu baax a baax ak ñi nga xam ne xam nga ñoom laa fi fekk waaw yéen moom les jumeaux xam nga waaw gudd fan ak wér et tout ça effectivement surtout lolo gagne une parce que tay mom lay chaque fois yens suñu fierté commune face Gueule tapé Colobane tay bu PMG si si si commune bobu lañu bok ñun dañuy dañuy fier man à chaque fois ma tok di c'est ce que je dis ñi nga pourtant ñi suñu wa koñ nañu donc tay yoon la pour yeen ngeen lu si commune bobu nonu et puis ñu ngi si bu est-ce qu'on peut avoir un contact pour le label Il y a beaucoup d'artistes et déglu émission PNG. il mm-hmm. y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons bourrés de talent. Mm-hmm. mais a un label yu est mm-hmm. très est-ce qu'on peut avoir un contact pour que demain ou après demain il y des artistes ou bien des futurs jeunes artistes mun ou bien vous avez déjà fermé vos portes non bon en fait on n'a pas fermé les portes mais comme nous le koy chaque fois Kanaka fait un label boo on va pas nous mu nekk label boo xam ne dafay saturé par par euh, artiste artistes quoi man je préfère jël ben artiste liggéey ak moom deux ans wala trois ans pour que mom déjà carrière mom mon ko organiser normal après son que mais ça pas dire que les portes sont sont fermées bu artiste bu ñëw bu ñu gisee bu dee yàkkamtiwuloo mën nañ le mettre en stand by le temps que ñu voilà nga top yoon bi quoi voilà ñu moom du am benn problème sinon ku ñu bëgg contacter aussi pour Canal 4 mun na woote si 77 324 97 17 loolu mooy numéro 4 production donc voilà ñu ngi fi ibbeeku nañu pour ñëpp di remercier aussi euh, Leuz diwanchi. ci waaw Leuz euh, euh, léegi tontu na mais Djantal Boy, la di ko ñaanal yàlla. ah bon si message non noonu. ah oui tontu na ma ba pare Leuz day ñëw sama studio. parce que moom xarit la ak Bay Mike. voilà donc ñoom dañuy ñëw fofu, xam nga boy yu génération new génération ñu bari dañuy ñëw fofu di job ak bay Mike.

waaw bon di leen remercier déjà PNG show amu leen morom di remercier aussi képp ku dëkk Mbour PA di voilà. waaw Mbour moom Bàcc laa njëkk remercier. waaw Bàcc surtout man aussi moom laay remercier parce que moom moo leen contacter sax pour ma def émission bi donc euh, maa ngi koy shawraat bu bu baax a baax a baax parce que moom aussi sama grand la te yàgg na jàpp ci affaire yi voilà tout le temps daf ma naan soo amee loo am rek loo xam ne da koy jaay wala dama ciy jàpp woo ma ma jàpp ci donc maa ngi koy bëggee bu baax. di bëggee sama papa sama yaay ñu ngi xam ne voilà tout ñu ngi jàpp ci affaire aussi di def ñaan aw seen fay quoi di wax yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp yéen aussi di leen souhaiter bonne chance bonne continuation ci li ngeen di def di bëggee timbaandi bu xees yëpp ak sama beatmaker Wizia Teacher. si amoo ay fan suy ñuul fan suy xees rek. non baandi bu xees tim baandi bu xees non bari naa fan suy ñuul mais dañ leen di dañ leen di raaxaale ci biir rek. comme ça ñu joxe ay teint yu kii. ok teint clair quoi maa ngi bëgg ñëpp daal voilà di leen wax one love et merci beaucoup. Chagabab, tu as oublié de dire. waaw waaw juste euh, remercier aussi mes parents parce que ñoom euh, aussi franchement ils supportent wi euh, Lady Wiko te xam naa ne instant ñu ngi parce que bi may ñëw la ma paa bi naan wax ma numéro bi pour mu mun a connecté wu déglu émission bi donc maa ngi koy big up de passage ak euh, Wafas, Waparcel, wa parcel ah ko ñu Lady Wiko xam nga di bëggee vraiment ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi nekk ci ginnaaw Lady Wiko Diko ko jàppale promotion single femme number one One Love King FM forever. Forever. Euh, Lady sûrement message yi nañ euh, après j'espère que tu auras le temps de répondre quelques auditeurs wala yow da nga bokk ak artistes yooyu ñoo xam ne duñu tontu. ah non que ma tontu. parce que ku la yëg rek moi la sonnal donc j'en profite aussi maintenant pour remercier Waparcel.

Comment tu as trouvé l'émission Tu as aimé toi Si, j'ai aimé parce que vous m'avez mis, à l'aise, quoi. J'étais à l'aise avec vous. Euh, ça le fait de découvrir euh, une star que tu connaissais pas aujourd'hui à travers l'émission de PNJ, Hamantengen, vous allez vous échanger les numéros. On ne sait jamais demain qu'est-ce qui va arriver aussi. Bien mhm. sûr, bien sûr. Tout ça se fera, Inch'Allah. Merci encore une fois à vous. Donc, connectez euh, vous si yéen ce son mais mon band son oui vas-y. les, les messages. Vas-y, lire-nous trois messages, allez-y. Euh, D'accord. Euh, salut, sister, t'as assuré, je note 10 sur 10. Non, 10, oui, mon nom Ça va, oui, mais je ne vais pas Ça va, je ne vais pas Je lire. Je sur 10, ni de nous amul. Message, bon, il y a 10. Lire sur 3. 10, note 5 sur 5. Yeah! c'est Modou, tu as assuré 10 sur 5. Oh. Yeah, <laughs> mais Modou yow ëppal nga assuré je note 10 sur 10 du courage amul ragal ci kaw mais tout yi ñëwuñ de. Euh, la nouvelle lady of the game que du lourd vraiment je note la totale c'est Moussa. voilà je note 5 sur 5 la 10 ah, lañ la 20 man 5 de la part de Menemo. eh Menemo! <laughs> Papis may 5 waaw ñeneen ah, ñekkeneen ki may na Papis Papis a <laughs> Papis wax ok ok donc si ça merci à vous ok alors euh, yow ban son lañ lay may hmm. ngay bu bi number one Yeah. ok et toi on ferme avec donc euh, c'est avec ces deux sons qu'on va se dire bye bye chaque va finir sa album de. une émission spéciale mais coproduire voilà Gernan. Kennedy. voilà donc les auditeurs j'espère que vous avez aimé euh, l'émission des jumeaux PND deuxième numéro de la semaine demain ça sera notre troisième numéro en compagnie des Miss les futures Miss qui sera la future Miss Sénégal que ko demain dans ngay de Radio bi 21h 0h mais avant radio, bi télé bi suba du invité artiste le pourquoi. parce que le terrain Teranga Sénégal dañu remarqué chaque mercredi PNJ avons une émission mais nous avons am temps mais euh, euh, teral seen ay ay téléspectateurs mais demain nous leen ne suñu ay invité Donc, lay doon kon nous ku enveloppe pour 50 millions, il fi yu 100 millions, yaa bien sûr billet d'avion il y fi kon demain émission bégee la ak suñu téléspectateurs donc pendant une heure de temps nous ak les lay sur si télé 16h 17h donc c'est à ne pas rater demain dans spécial euh, Hello Ado le soir on va se donner rendez-vous ici même à la radio pour notre troisième numéro J. Yep. Wallah à vous tous, on remercie bien sûr euh, Dominique et Mace euh, côté technique. Euh, mention spéciale à tout ce beau monde qui nous ont suivis via le net, la page King FM et le JNP. Nous avons envoyé des textos via le 77 244 22 22. Léonie, la diva, gros bisous à elle qui a assisté à l'émission pour une